nag amuñu woon yenn ak yi xëy na nag après une année euh, de d'exercice parlementaire ku ci nekk ci ñoom xam nga lan mooy sa rôle lan mooy war a doon sa image lan moo war a doon sa taxawaay moo tax erreur yi ñu defoon daaw c'est sûr que duñ ko répéter ren mais aussi ñenn ci ñoom ñi nga xam ne ba ñu defee erreur teg nañ leen ci yoon li war ci ñoom ñu daan leen xëy na yooyu yëpp ay jàngat yu ñuy jëlee la mais lu mu ci mën a doon assemblée bi moom am na lu bëri luñ ñu fa war a yi parce que boo déggee débat yi daan nañ am ay assemblée nationale certes niveau bi mësul mel ni mu bëgg ni askan bëgg ñu mel ko waaye nag euh, dafa mel ni bi yoon moom dafa gën a pire parce que assemblée bi gisoo benn innovation majeure boo xam ne def nañ ko bu génnee seen i xeex ak seen i xëccoo ak seen i riir parlementaire amul lenn loo xamante ne askan wi mën nañ ci teg baaraam ne lii assemblée bi moo ko fi teg wala bii loi boo xamante ne dafay jëriñ askan wi assemblée bi moo ko fi def te it xeexoo yi xëy na démb am na bu am moindre mesure waaye nag ba léegi ñu ngi delloo bu ca boy boy ga maanaam euh, xiiroo bee ngaayo bi dañagul foofu noonu. mi ngi Fatou Abdou ak dal dikkaat na bu baax a baax tâche d'huile bi rek wax nañu ko mooy ay député yi nga xam ne dañuy nag euh, def école buissonnière maanaam dañuy daw séance séance plénière loolu man jàpp naa ne cette année sax xaw na tane parce que daan na am assemblée nationale douzième législature beaucoup d' absence yoo xam ne da ko doon nemmeeku eh, ci eh, bu ñu ñëwee rek dafa fekk ne boobu caméra yi tàkk nañu xam nga taskatu xabaar yi nekk fa moom mooy tax ñu ñu présent mais lu ko mooy dafa bari ñu daan absenté ci li nga xamante ne moom moo jëm eh, ci bu ñuy waxtaan wala ñuy voté yenn yenn budget yi bii yoon nemmeeku dal gi ñu fa nemmeeku loolu remarque bi ñëpp def nañu ko l' assemblée nationale je pense que c' la vitrine ci ne mooy xew ci dëkk bi luñ ci mën ci wax fan yi daal am na ci réew mi et loolu bokk na ci li nga xam ne mooy aujourd'hui euh, euh, vitalité démocratique maanaam élection damay dégg Ndiaga Sylla di wax ne fête la war a doon pour un pays parce que c'est un rendez-vous entre euh, le peuple ak ki nga xamante ne moom moom la ñuy tabb bu ñu ci dee waaj naam yeggaguñ ci comme lu mel ne parrainage dafa war a nekk des moments de fête ndaxte da ngay dem di wax nit ki naam du yow la mën a voteel mais au moins benn début de confiance la ngir mu jox la carte d'identité ñu ne tous les candidats même Pastef bi ex Pastef bi nga xam ne Ousmane Sonko moom moo nekkoon seen candidat ñu ko doon wax bi ñu tàmbalee am ba Bassirou Diomaye Faye ba tey vous avez remarqué que am na benn dal parce que bu ñu xëyee dinañu dem wuti parent ñi nga xam ne nañ leen sànni sànni leen Bougane dina def noonu Malick Gakou Khalifa Sall Abdourahmane Thierno Alassane Sall Karim Wade ñi nga xam ne ñoo ko représenté Amadou Ba et loolu mooy vitalité démocratique dama jàpp ne loolu moom moo law ba assemblée nationale parce que ñooñu ñëpp ñi leen représenté ñi ngi assemblée et bu ñu fa nekkee débat bi dafa war a jaar yoon poser les questions qu'il faut et ñu ngi ko fay gis les réponses des ministres également rassurantes ci yenn points yi donc lu am solo la ñu dikkaat ci open press tour bu coalition gëm sa bopp ak leader ba Bougane Gueye ma nga woon ca tund euh, Kédougou Tamba ak yeneen ci ay région yi nga xam ne am na ay euh, recherche yu am solo jëm ci wàllu or uranium ba ci basalte ca noone euh, ci programme tekki bi mu fas yéene kon jébbal Sénégalais yi Bougane Gueye wax na ne dina fexe daal ba xoolaat lu jëm ci code minier bi ngir askan wa yeewoo ci tund yooyu yëpp mën a profité ci yooyu les richesses Abdoulaye Sow Dabakh ak Mbaye Tomboronkoto Banda Fassi nekk ci région bu Kédougou ñaari gox yi dalal nañu open press tour bu grande coalition gëm sa bopp Kédougou nekk région bu riche lool ci ressources naturelles waaye nag noonu la ndóole muy lu xel mënul nangu. Kédougou am na or am na uranium am na basalt te waa Kédougou nekk deuxième dëkk bi gën néew doole gën a ndóol ci Sénégal. lu ni mel la nemmeeku itam ci Tambacounda ci loolee sax programme tekki lu mu namm mooy saytuwaat code minier bile tere lépp luy exportation produit brut waaye itam importation produit fini. dañu ne à porter yére bu pare fii juróomi at yii di ñëw dootul dugg Sénégal. suñu tailleur yi mun a liggéey ci réew meuble importé fii ak juróomi at yii di ñëw dootul duggati Sénégal pour suñu nit ñi mun a liggéey ci réew mi waaw léegi suñu defoon la même chose ci menuisier métallique yi def la même chose ci menuisier bois yi def la même chose ci ñiy defar dàll yi waaw bu boobaa industrie suñu production locale du ñu ko booster. kon ñu exploiter ressources yi ñaari région yi buñ sukkandiku ci leader bu grande coalition gëm sa bopp bokk na ci lu programme tekki prévoir mooy taxawal ab fonderie ci Kédougou ngir ñu dakkal lépp luy exportation or bi ci yenn ci ay dëkk. saw da baax jërëjëf Ndeye Fatou mu mel ni kon tournée open presse bi Bougane Gueye ma nga woon ca Kédougou Tamba ak yenn ci ay régions yi nga xam ne am nañu Euh, euh, kon richesse mu jëm ci or uranium ak bataille ak basalte plutôt est-ce que li mu proposé xel dal na ci programme tekki ne eh, dina xoolaat euh, code minier bi ba yooyu les gàncax yi jóge ci gox yooyu mën a profité askan fa yeew mais loolu Mouhamed dafay li war parce que ñoom nu ñu nekk askan woo xam ne dañoo dëkk ci alal mais alal googu jëriñu leen da leen di jéggi di dem di jëriñi ñeneen te yu ni mel euh, buñ ko joyantiwul mën naa jur sax yenn soulèvement populaire yi parce que am na ay fitna yu fa yeew du dara lu mooy ni ñuy séddalee alal bi askan wi gisuñ ci seen bopp léegi nag yooyu ngir dànkaafu ko art ko dafa war lépp loo xamante ne tukkee na ci suuf yooyu noonu askan wi mën cee jëriñu mais suñ ko deful mën na indi ay frustration te yooyee mën na jur fitna ci gox yeeg goxaan yooyu parce que tamit en Afrique loolu même kee Kédougou dafa bari fii ay diwaan yoo xam ne dañuy am ay ressources mais askan wi duñ ko jëriñoo xoolal Niger li ñu am ci potentialité dem ba ñoom problème mu électricité seen uranium boobu au lieu mu jëriñ leen muy dem ba jëriñi France mi nga xam ne moo koy jëfandikoo saa su nekk ñoom ñuy dem bay am problème mu électricité hmm. yu ni mel nag toujours ci ay fitna rek lay mujj moo tax ku bëgg a jiite réew mi lu askan wi askan di ci jëriñoo su ko defee ñoom dinañu mën a gis seen bopp si mbir mais bu yàggee mbir mi bu leen di romb di leen romb dañ ko dogaale te buñ ko dogaalee loolu mën naa yee fitna. Fatabdou. bon ressources naturelles yi moom euh, daf déjà ñun dañu ko bari leen bu ñuy wax ne ñun am nañu lépp et malheureusement gisuñu ci suñu bopp loolu nag il faut ñu corriger ko. nga xamante ne aujourd'hui war na toog war na mën a corriger. après 2024 les accords déjà li nga xam ne moom la ci Sénégal di am ci pàcc ndax am na si ñoo xamante ne eh, bi Gajaga lakkee la ñuy door a xam ne Sénégal tàmbali na exploité gaz alors que Sénégal doon na ko exploité daanaka lu yàgg te nit ñi xamuñu ko tout simplement parce que sentiruñu ko aujourd'hui boo demee fu ci mel ne Kédougou dem ci ay gox yu mel noonu or bi li nga xam ne mooy zircon bi fi nga xam ne moom mooy jogo ak yeneen ni localité yoo xam ne am na sunu ay ressources te gisuñu ko Bougane li mu proposé aujourd'hui je pense que bu ñu taxawee ci sénégalais bi gis ci boppam ndax Macky waxoon na ko les ressources naturelles appartiennent au peuple maintenant su fekkee ne appartenir peuple bi peuple bi daf ci war a gis sa bopp si Bougane propose que demain askan wi nañ ci gis seen bopp je pense que c'est une bonne proposition mmh. et lan la wan leen di mujjee ak lay teg ci loxo sénégalais yi mi bi euh, mu mel ni kon tollu ci juróom ci ay euh, yëf yu koy waral en tout cas euh, daan nañ koy xam waaye bokk na ci daanaka lii tax jigéen ñu ci bëri bëri ñu leen di tëj fii ci mim réew di Sénégal lu jëm ci wàllu ñàkkum koom ak surtout lu jëm ci beddi konte yu ñu nemmeeku ci mbir ma bu leen dale wala sax leen saay yenn kàddu yu ñu leen di duut ci seenu ginnaaw loolu lépp day doon ay facteurs yi nga xam ne mën na ko expliquer entre autres facteurs boobu léegi étude nag ma nga tukkee ci African Population and Health Research Center mi publié boobu la étude euh, ci wàll wi ñu teewlu ci nank ko jàngat bi ñu def ci Sénégal ci jur doom rey te ñu dippee ko ethnographie de l'infanticide au Sénégal expérience ak mécanisme de pénalisation yi ñu ngi ko amal ci région bu Dakaaru rawatina ci kaso yi ñu jagleel jigéen ñi ci Liberté 6 ak Rufisque itam ci tribunaux yi nekk ci Ndakaaru ak ci banlieue bi l'enquête yi nga xam ne amal nañu ko diggante mai 2021 ak janvier 2022 wane na ni jur doom rey ko bokk na ci juróomi mbir yi nga xam ne mooy gën a yóbbu jigéen ñi ci kaso fii ci Sénégal jigéen yi ñu nëbb jant bi l'enquête bi nag ñu ngi ko seq ak fukk ak juróom-ñeenti jigéen yoo xam ne seen at mi ngi toll ci diggante vingt cinq jàpp trente ans l'enquête bi wane na ni jigéen yi nga xam ne dañuy ëmb mujjee faat doom ji ñu ci baree bari jànguñu wala seenub njàng mi ngi yem ci école primaire noo ne jàngat bi gis ne jafe-jafe koom-koom bokk na ci li gën a tax ba jigéen yu baree bari di nekk ci mbir yoo xam ne ci ëmb lay mujjee l'enquête bi nga xam ne The African